man naa sàkk pexe nag sëñ Mamor man naa sàkk pexe gannaaw la ngay ñëw di nuyoo si boo ñëwee